billahi min alsheitan irrajim la hawla wala quwata illa billah alil azim hasbuna allahu wa nima alwakilu nima almawla wa nima nasir asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen mbokk yi ni seetaan ci réew mi ak di ñu déglu ci suñu rajo premier suñu rajo origine fm 88 point 4 ñu ngi leen di nuyu nuyu bi gën a sell tey ñaan sunu borom mu may nu ñun ñëpp ñu yendu ci jàmm ak salaam di ziar suñu kilifay diine yi nin ko baaxoo def di ñaanalit sunu kilifay aada yi nga xam ni yàlla miy joxe nguur moo leen teg ci boppi réew mi eh, li ko tàmbalee ci son excellence le président Macky Sall ba ci ki gën a suufe kenn ku ci nekk rek loo yor pour ñu defar ci réew mi noo ngi ñaan sunu borom yàlla na ci jàpp ba lépp sotti Sénégal jëm ca kanam di ñaanal ñi feebar yàlla nañu wér ak jàmm di ñaanal nag sunu bokki sénégalais yi nga xam ni foo dem la ci àdduna bi fekk leen fa eh, te teraanga tax leen a jóg yàlla na leen ko yàlla may te musal leen yàlla sàmm leen bee dara du leen dal ba ñu ñibbisi ci jàmm ak salaam bi jaayi seydil wujood sallallahu alayhi di ñaan ci réew mi jàmm di ñaanal waa réew mi yépp jàmm ak salaam eh, balaa ñuy dugg ci waxtaan wi nag ñu ziar bu baax sëriñ Babacar Sy xam ngeen ni sëriñ Babacar Sy le 25 mars 1957 la génn àdduna boobaak léegi di juróom benn fukki at ak ñaar doon góor goo xam ne dëgg-dëgg bi fi Seydi Hadji Malick jógee 1922 moo ko remplacé liggéey fi liggéey bu rëy a rëy 1922 ba 1957 mu dem yal na yàlla yokk leeram ca barzaq te taas nu ci barkeem bi jaayi seydil wujood xam nga sëriñ Babacar mooy way juru Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum mooy way juru euh, sëriñ euh, Abdul Aziz Al Amin mooy way juru sëriñ Mansour si borom daara yi yal na yàlla yokk leeram si bi jaayi seydil wujood sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi nag ñu dem rek ci li ñuy waxtaane toujours mooy luy aar Sénégal ak luy defar sunu Sénégal eh, maane nag boo ma mënee waxal gars yi tuuti bruit bi <laughs> parce que coow li xaw na bari waaw ñu may nu rek ñu def sunu sunu émission eh, xam naa li waaw li nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee rek moo di Sénégal. ak luy aar Sénégal xam ngeen ni fii ci suñu émission ci réew mi yàgg nañu wax ni Sénégal am nañ problème ci ni fi nit ñiy duggee ak niñ fiy génne ak niñ fiy nekkee parce que réew euh, wax dëgg yàlla bañunu ku fi ñëw waaye ku fi ñëwit nañu xam kan la nañu xamit nan la fi nekkee ak lan moo ko fi indi ak lan la fiy def parce que loolu c'est le minimum xam ngeen euh, yu baree baree bari sénégalais yi ñu ngi koy gis te daawuñu ko gis mooy dañu rend nit dagg bopp ba wala dañu rend nit dagg loxo ba yooyu doomi sénégalais mënu ko xamu ko waaye bu fekkente ni réew mi ku nekk daf fii ñëw te soo fi ñëwee ni ñu war a tegee gët ci ni fiy nekkee matut di nga wàll jàngoro yooyu ñi nga xam ni mataguñu ndax gone du gaaw a xam xam ngeen euh, démb rek gis ngeen ci télévision yi ñu génne benn gang lu mat juróom-ñeenti nit ñoo xam ni ñu nga dëkk dëkkoon ci cité bu ñuy wax cité imbécile man tur woowu sax moom a njëkk <laughs> def problème waaye ñoom ñoo ñu doon toj kër yi. bi ñu leen jàppee amu ci kenn kuy sénégalais te ñooñu ñu ngi jaxasoo ak ay doomi sénégalais di leen jàngal lu bon loolu ñu di ko def li ko def nag moo di maanaam réew mi ñi war a aar dëgg ñoo nu parce que problème wu Sénégal moo di frontière am te loolu bërki dem rek bi ñuy yóbbante président wax nañu ko sunu frontières yi dëgg-dëgg du sax ay frontières yàlla moo nuy musal rek waaye lu nekk mën na fee am dangay gis ci benn kaj koñ ay nit yu fa dëkk dëkkuñu Sénégal xamuñu sax li ñuy wax ñu kenn du leen gisit euh, euh, bëccëg guddi rek la ñuy jógal te loolu bari na ci koñ yëpp dañuy louer ay appartement yu cher waaye ñu ci ëpp ëpp li ñu fi nekke dara baaxu ci ñu ngi ci drogue bi ñu ngi ci cybercriminalité yi ñu ngi ci mel noonu te suñu réew mi am nañu police bu ñu formé bu baax a baax am armée bu dëgër am gendarmerie bu dëgër nañu nu topp tool sunu réew mi dégg ngeen cëkkee Kédougou ci xibaar yi ñu ne dañu jàpp benn waay bu dëkkul Sénégal mu yor ay këyitu juddu ay Sénégal te loolu wax naa ko fii bërki démb président ay millions yi nit ñu dëkkul Sénégal ñu ngi yor këyiti Sénégal te loolu li tax parce que nag euh, ay enquête ak i renseignement sénégalais bu nekk boo considérer sa bopp comme un flic war a defendre Sénégal il faut ngay gëstu ci yu demee noonu man damay toog fii ab sénégalais bu nekk bu nekk euh, Congo wala bu nekk Gabon wala Guinée équatoriale dañu may woo ni mais ñu nga gis ñu ngi gis fii ay ñoo xam ni dëkkuñu Sénégal <coughs> yor passeportu Sénégal yor passeportu Sénégal lu ñu fa manti def ñu ni ab sénégalais moo ko def moo tax war nañoo seet nag sunu nationalité yi naka la ko nit di amee du question dañu bañ ku fi ñëw waaye dem Côte d'Ivoire taxul nga wut kayitu Côte d'Ivoire mais Sénégal am na sénégalais yooyu mën nañu jaay réew mi ci ñaar fukki junne parce que fekk koo xamante ne dëkkul Sénégal nga wutal ko kayitu Sénégal léegi da ngay dajeeg sax benn waay bu dëkkul ci réew mi nga wax mu génne poche am génne carte d'identité ni la man sénégalais laa comme yow te ndeyam dëkku fi maamam dëkku fi baayam dëkku fi daraam dëkku fi mel ni Sénégal dañ ko dañ koy parce que sénégalais nag suñu vrai problème mooy ku gis xaalis dof ku gis xaalis rek mën ngaa def lu ne te amin am na war nga koy seet xanaa loo bon bon bon waroo mën a jaay nationalité sénégalaise ci ay fukk ay junni ay ñaar fukki junni ay cent cinquante mille te loolu bari na Sénégal bari na ñu fi nekk dëkkuñu Sénégal te ñu ngi am nationalité sénégalaise daanaka sax ñoo nu fat problème yi ñu am yépp ni ñu parce que organiser wuñ leen. xam nga Mauritanie gii nga xam ne ñoo taqaloo mais ña fa nekk ñëpp te dëkkuñu fa dañuy am carte de séjour dañoo am carte de séjour parce que carte de séjour li muy li muy du question xaalis bi muy dugal mais li muy def mooy am na gan gu fi dugg tel jour jóge tel réew ñu jox la këyit wuy xamee ne yow mii da dugg Sénégal même boo joxe wutub xaalis sax ñu wutal la carte mais Sénégal daal ku ñëw am carte ku ñëw dëkk ku ñëw def nu la neex ku ñëw def sa bandit parce que ñun soxlawuñu ay woyu ci sunu réew. soxla wuñu fi ay sàcc te actuellement gang yu baree baree baree bari ay ay ay étranger lañu parce que contrôlé wuñu leen di nga am fii Sénégal dix ans kenn du la laaj saw këyit mais pour lan mel ni dañoo bëggul Sénégal ñun ñoo ngi tukki sénégalais yi ñu ngi dem sénégalais yi yàgg Congo am nañ fa am nañu fa am 40 ans amuñu fa nationalité jéemuñu ko sax seen liggéey la ñuy def bu ñu amee dara ñibbisi mais Sénégal boo ñëwee bu la neexee man nga fay am ñeenti weer jënd jënd jënd nationalité sénégalaise te loolu état bi war na ci jóg contrôler ko ñi fi yor ay këyit te dëkkuñu ci réew mi wallahi c'est des million moo tax bu ñu mën naan Sénégal 14 millions la motuñu ko dañ cee dolli presque 3 millions yoo xam ne c'est pas des sénégalais et il faut vérifier li ñuy wax dañ cee am lu leer nag parce que du que police du police rek mooy enquête sénégalais bu dëkk Sénégal bëgg Sénégal am na loolu boo ko gisee fokk nga gëstu ko. dañuy dañuy gëstu ay nit di ñu wax nu am ay renseignements comme ni ko police di amee renseignements généraux il y a des millions d'étrangers qui ont la nationalité sénégalaise actuellement et c'est très grave c'est grave parce que bu lu ñu mënti def ñu ne ab sénégalais la te du sénégalais mais nag loolu li ko def mooy dafa am ñoo xam ni seen liggéey la ñu deful bu fekkente ni nag am ab système dafa am ay failles failles yooyu day répercuter ci lépp Sénégal actuellement nit ñi war nañu tiit. xam nga ren di nit di dagg ay bopp ak yooyu ñun xamuñu ko waaye am na ri xanaa xamu ni sénégalais yi ni ñuy woowee ku fi dëkkul dangay ngay dégg ñu naan ay ñag lañu xam ngam ñag du nekk ci biir kër du nekk ci biirub dëkk ñag ca àll ba lay nekk parce que loolu mooy dañoo bëgg a wax ni bokkunu ak ñoom ndax bokkunu culture bokkunu aada bokkunu ay gëm-gëm kon am na noo xamante ni waruñu nee doxe fekk ku mën a di nit dagg bopp ba dem jaayi ko xale yi nii sàcc yépp ay gan la li ci am yor ay oto yu amul numéro tëj weer ya di sàcc ay gone di yóbbu di jaay trafic boobu mais am na réew yoo xam ne moo dafa am bu yàgg la fa amoon mais Sénégal yooyu yëpp noo ngi koy gis parce que contrôlé wunu gan ñi fi nekk te gan gu fi ñëw gën a xeej ku fi dëkk mel ni dañ koo tëyut mel ni dañoo bëggul suñu réew mais am réew quand même au moins frontière bi warees na koo sàmm mais frontière boo xamante ni boo yorul aw këyit sax boo joxee xaalis dugg te doomi Sénégal moo fay dugal doomi Sénégal moo lay dugal parce que moom poosam képp moo ko ñor mais réew mi am sécurité ay ay lu ne dugg fi yooyu yëpp c'est pas son problème nay wàcc rek poos bi fees poos bu fees nag ak tooke boo dugal Sénégal waras na koo seetaat réew mi waree su koo defee nii pourquoi Sénégal daal léegi fu waay jóge ci monde bi rek ni demal Sénégal boo demee ñu jox lay kayit parce que Sénégal c'est un pays très respecté dans le monde foo ni sénégalais nga sénégalais njëkkoon di génn mosuñoo génn mukk dem bitim réew di fa def yenn yi lu baax la ñu doon def nangoo liggéey di ay vrai gentleman loolu lañ ñu xamee boo demee Côte d'Ivoire nga dem Gabon nga dem Congo yooyu yëpp sénégalais ya fa jëkk ñoom alaaji Jili Mbay ñoom Njugo Kebe ah ñoom alaaji Tamsir Mbuub ba ñu fa nekkee ay royukaay la ñu woon ñun mësunoo génn dem ci menn réew lakkal leen wala ñu fatt leen wala ñu def fa dara lu bon lu baax rek la ñu xam quatre-vingt-dix-neuf pour cent des sénégalais bu ñu nekkee bitim réew c'est de vrais ambassadeurs mais pourquoi nag ñun te réew mu nu dem nag ñun dana ñuy contrôler di ñu di ñu fayloo ay ay ay lu ne lañ ñu koy fayloo séjour di ñu di di ñu contrôler léeg-léeg sax nga gis sénégalais buy yónnee xaalis ay bokkam day dem woo ku dëkk ca réew ma ni ko yónneel ma ndax da koy yónnee ñu naa la sàcc bi. yaa ngi nekk ci sunu réew di jël sunu xaalis di yónnee sa réew mais Sénégal kenn bundu ko tàllu fi kenn waaye nag tekkiwul ni danoo war di jaay sunu nationalité sénégalaise ay étranger pour lan laajal woo leen seen bokk yi nekk Gabon ngeen laaj leen wala Congo dañ lay wax ni fii gis nañ fi koo xam ni wér na ni du sénégalais te mi ngi yor ay kayiti Sénégal tab sénégalais ko jaay fii sunu maire yi léeg-léeg nga dem fa fekk fa waajoo xamante ni boo ko joxee cent cinquante mille mu bindal la kayitu judd nga dem wuti carte d'identité daal di wut passeport voyagé au nom du Sénégal nanu seetaat yooyu sunu réew mi waree su koo defee nii ab xaalis boo koy wut da ngay nangoo liggéey te bañ koo yàq bu yàggee nga yor dara mais di jaay nationalité sénégalaise te wallahi bis bu état bi gëstoo te jàpp naa ne xanaa dinañ ci jóg parce que nag quand même mënuñoo bàyyi réew mi nii rek ku yor su lëf ñu jaay la nationalité sénégalaise ah xool leen sunu mbedd yi ni mu mel demal Guinée wala nga dem Mali wala nga dem Burkina mbaa di d'Ivoire doo fa gis mukk benn étranger ñi mee taxaw di laal ci ci ci trottoir wala muy jaay ci autoroute à péage amul mais Sénégal daal noonu noo nooy léegi daal noo gënoon a muus gënoon waaye noo gën a ñàkk fulla ci monde bi moo tax lu ne nu ñu nu koy teg naka nga naka la ab sénégalais di jaayee nationalité sénégalaise ñi fi yori këyit te dëkkuñu ci réew mi te loolu du sécurité sécurité mi ngi commencé d'abord ci ku ne ci réew mi ñu xam kañ nga fi dugg loo fiy wut ak foo jóge nañuy wut ay carte séjour man waxuma sax nan koy jaay mais ku fi dugg di étranger da nga yor wenn kayit boo xam ne mooy wane ni tel jour nga fi dëkk nga fi nga fi dugg jóge tel dëkk bu ko defee ñu man la contrôler mais réew moo xam ne boo joxee xaalis sax sa frontière ba jàll mais loolu c'est c'est très grave te yii nii wax naan insécurité bi ci dëkk bi crime yi yooyu yëpp waatal naa leen ni reen ba dëkkul Sénégal fa jógee mooy bitim réew sénégalais doomi sénégalais dëgg dëgg dëgg dëgg ñemewut amul fitu tiim amul xol bi sax di tiim moromam di ko rendi waaye loolu lépp mooy niinu uh, woyafale wooyafale sunum réew uh, doo contrôler doo seet dara man bi ma nekkee Afrique réew moo ma sa dem musumaa xëy mukk di jaay foo mën a dem nag di jaay ñetti yoon police dina la ko laaj say këyit wala quatre fois par jour restaurant yi sax dañu lay fekk ba ci biir laaj seen carte d'identité di la contrôler mais man bañu ma woon loolu parce que noonu laa bëgg Sénégal di ko def fi mu ne doomi Sénégal yi <clears throat> nekk bitim réew lu ne lañ leen di def te si ñooñee seen waa réew bu ñëwee fi duñ leen def dara ñu leen laaj dara duñ leen sax contrôler mais bu yàggee ñu yab la bu yàggee ñu yab la parce que nag leen li ak ñàkk fula lay gën a nuru parce que am réew nga bëgg koo ubbi nii rek ku ñëw dugg ku ñëw nga jaay koy kayit mais ñi koy jaay ñooñu c'est des criminels nationalité sénégalaise warul yombe noonu. est-ce que da ngeen a gis benn réew bu fa nationalité yomb sénégale yi am nañ 40 waar Côte d'Ivoire mënuñu faa ami kayit sa doom ju fa juddoo sax pour mu amu kayit problème la mais fii léegi dafa am ñooñ sax dañ fii ñëw pour léegi doonub sénégalais nationalisé sénégalaise te rapidement nag mën nga koo am ci deux mois ndax dañ la koy jaay ni ñu doon jaayee permis yi Louga bu nu toppee xaalis bii Sénégal dina dem ba boo moytuwul dinañ mas a am candidat bu fi dëkkul ku dem élection fii présidentielle te du doon sénégalais dina ma bu ko defee nag mu far nu wanteer benn yoon ndax xaalis te benn sénégalais bu bon mooy def loolu waaw xam nga ni di jaay te sénégalaise ay këyit këyit te kat ci région yooyu lañuy dem ay boori Kédougou ay Casamance affaire yooyu waaw foofu moom waaw même mbedd mi sax xale yi fi yelwaat dëkkuñu fi ñi ci ëpp ñëpp Guinée Bissau lañ jógee feneen nekk ci suñu mbedd mi ah di yelwaat bu ko defee ñu naan Sénégal ñëpp dañuy yelwaat parce que Sénégal amul fulla Sénégal bu amoon fulla yooyu du ko accepté yow koy boo yoree sab xale boo xam ne yalwaan képp lay def nay am sam réew ñun am nañ ñunu mën a sarax fi mais nag bu fekkente ni bëggoo réew mi mais am na yooyu jaralu ko moo tax war na noo jàngaat bu baax luy civisme ak patriotisme nit bu bëggee parce que suñ maam yi dañ doon joxe seen bakkan pour défendre Sénégal dañ doon joxe seen bakkan parce que Sénégal jaral na leen ko waaye koo xam ne Sénégal jaralu dara boo ma boo ko mënee jaay sax wanteer ko loolu mooy lan mais nanu seetaat sunu bopp te lii bu yàggee insécurité dina gën a law Sénégal ndax ku ñëw ami kayit ku ñëw dëkk kenn du contrôler mbet koñ yi sax dangay gis ñuy def lu bon waa koñ ba di ko gis bu ñu génnee may may leen may leen junni bu ko defee ñu ne meex ndax junni bi junni boo xamante ni ëllëg mën naa taal sam réew loo ci soxla te si insécurité bi kanam la jëm de lii bu dakkul nii nga xamante ni parce que culture nit nit ni muy dundee ak bokkuñu ay culture am na réew yoo xam ne sax dañ la naan région sàngam ab néew doo ko fa gis am na ñoo xam ne bu ñu faatoo ñeneen ña dañ leen di lekk ça existe en Afrique dem naa ci région boo xam ne loolu lañu ma wax néew doo ko gis ku dee ñu lekk ñoom xam nga kooka bokkut ak sénégalais kooka nag bu ñëwee fii mais mën naa yàgg mën naa dem ba yàgg mu wàllu ñu jàngoro jooju parce que jàngoro day wàlle waaw toutes les maladies la plupart des maladies c'est des maladies contagieuses lu bon day walle lu baax day wàlle nit su ngeen bokkul culture bokku leen aada bokku leen cosaan dafa am nu ngeen di ànde dafa amit noo koy téye dafa amit fu muy yem mais bu fekkente ni fu waay jóge ak loo bon bon bon ak culture boo fi mën a indi Sénégal bàyyi la ngay def lu la neex da ngeen fi gisoon ay jamono muy diine yi sax da ngay gis ku xëy ubbi ubbi ubbi benn affaire ni ni chrétien la indi beneen yoon beneen waxin beneen defin di ne gone yi Sénégal di seetaan yooyu yëpp am na fi parce que dafa am déficit bu am Sénégal d'autorité parce que am réew dañ koy contrôler am réew dañ koy contrôler ay étranger dañ leen di contrôler bañu nag ku fi ñëw ndax noo daq tukki ci monde bi waaye nag noonu fu nu mën a tukki ci àdduna boo déggee sénégalais benn bu bon di nga gis million sénégalais bu baax bu jub bu nangoo liggéey boo xëy réew mi mu nekk mat na fa ambassadeur waaye ñun sunu réew mi daal mooy réew moo xam ne noo gën a ñàkk fulla actuellement ci Afrique demal Mauritanie gi sénégalais bu fa ne ma nga këyit wuy wone ne sénégalais bii dugg na fi tel jour sénégalais bu fa nekk rek dangay fay sax carte séjour ñun ñu ne fii di yagar yagari quoi bàyyi sunu réew mi ay nit di ñëw di di jënd ay nationalité ay millions étrangers ñoo am carte d'identité Sénégal ak passeport Sénégal fan lañ ko teg waa kooku bu ëllëgee bu faloo bu faloo doon président mënta jaay Sénégal ñibbim réewam mën naa nekk mais nañu nu sàmmal sunu réew mi état bi na jóg ci lii nañu contrôler ñëpp sénégalais yi sax nañ leen contrôler waat waaw parce que am nañoo am na lu fi xew loo xam ne ah lii moom dëgg-dëgg jëmul kër jëmul kër nañu fonk suñu réew te aar suñu réew am réew wër te nekk passoire Sénégal fu fu la neex ngay jaar dugg soo ñëwee aussi ci dëkk bi lu la neex nga fiy def kenn du la contrôler man nga fi am 10 ans kenn du la laaj sa carte d'identité avec ça ngeen ni sécurité man naa am yu bon yi ngeen fiy gis yépp ay gan la mais un vrai sénégalais du def yenn yi te yii nu fiy dégg ña fukki at yii passé fukk ak juróom ay dañ koo rey dagg te ko dugal cib saako xam nga ni loolu du sénégalais waaye nag ko lu ñëw nga téye di nga téye ba téye jalum muus waaw di nga téye ba téye jalum muus nanu seetaat suñu bopp parce que nag lii ëpp na de waaw ëpp na waaw bis bu ne nga dégg ñu ni jàpp nañ ab nit dëkkul Sénégal ma nga yor ay këyit ci sénégalais te fu mu ko jëlee da koo jëlee ci mairie wala da koo jëlee ci arrondissement pour lan pour lan ab sénégalais di wanteer national nationalité sénégalaise loo xam ni procédure bi des fois dina am vingt ans nga soog koo am te day fekk peut-être nga am jabaru sénégalaise am fi doom am fi alal dematoo fen li ñuy dañ lay enquête enquête ba presque dina jël vingt ans nga soog a am nationalté sénégalaise fii nag léegi boo yoreb xaalis mën nga koo am ci deux jours mën ngaa dugg Sénégal lundi mardi mercredi ñu wutal la kayitu judd bari na fi nañu seetaat sunu bopp te loolu bu yàggee dina indi lu ne ci réew mi guerre sax mën na koo indi waaw parce que nag am réew kenn du ko wanteere noonu de kenn du wanteere noonu sa bopp de nañu seet li ñuy def bu baax a baax a baax waaw insécurité yi nii wax war nañoo gëstu bu baax loolu parce que nag lu lu garaaw a ngi noonu surtout nag sénégalais yi nekk bitim réew daf leen a méttee méttee métti ba mar d'Italie ndax des fois dañuy fay daje ak ay doomu Afrique mu wér leen ni waa ji il n'est pas sénégalais mu génneel leen passeport sénégalais ni leen man sénégalais laa te mu wér la ni da koo jënd loolu ban réew la am. ban réew la loolu am waaw di wanteer sa réew di jaay sa réew à cause de l'argent parce que xaalis yàq na réew mi corruption bi yàq na réew mi waaw léegi kenn jombatul dara waaw yow wóor na la ni lii ngay dugal sa réew mën naa taal sam réew mais ñu jox la xaalis su su ñàkk fayda nga xam ne boo ci dépensé ñaaru fan mu jeex nga dem jaay Sénégal loo xam ne mën naa taal réew mi pour lan te loolu day indi bu parce que am na yoo xam ni peuple bi soo leen ko koy teg day mujj dem ba bëgg koo fajal boppam te mën wërta nekk yoon moo war a fajal ñëpp mais yoon wiy fajal ñëpp mooy yoon wu tegu ci yoon di contrôler di seet lii dox Sénégal di seet ñi fii ne waaw waaw gaa yi ngeen jéggal ñu tuuti rek ci wax ji ngir yàlla waaw nañ contrôler bu baax sunu réew waaye lii di am Sénégal a ah, ñu bari jaaxle nañu de tey de man bi ma déggee xabaar bi ñu ni euh, am na benn waay bu ñu jàpp dëkkul ci réew mi mu yor ñeenti këyitu juddu yu nga xam ni ñooñu dañuy dem rek daal di wuti carte d'identité ca frontière ba la ñuy dem da wut wuti ko fa après nag yëg si Ndakaaru frontière ba moom mel na ni boori Kédougou googu moom dëgg dëgg loo yor ñu defal la këyitu juddu senegal te boo yoree këyitu juddu Sénégal dem wuti carte ah, nañu nañu seet yenn carte yi ñu laaj leen. seen seen carte seen seen national seen certificat de nationalité ak kan mooy seen baay ak kan mooy seen yaay ah dinañu mas a dem ba am président bu dul sénégalais bu fekkee lii mi ngi wéy parce que dinañ mas a tolloog ñun barki démb nee leen fii 14 millions de sénégalais yi nii wax kat yi bokkuñu ci Sénégal mënut a mënut a mënut a màggee noonu barki démb rek on parlait de 6 millions 7 millions. tey ñu bëgguñoo yóbbu 14 millions parce que il y a eu plus de 3 millions de nationalités sénégalaises yoo xam ne dëkkuñu fi te buñ ko seetee dinañ ko teg bët te lu mat a jóg ndax bëgguñoo dem ba ba peuple bi fajal boppam pourquoi ngeen di jaay sunu sunu sunu réew mi comme sax yenn bon bon yi ñuy gis ci réew mi xam ngeen ni loolu du yëfi sénégalais sénégalais xamul yenn yi sénégalais amul yenn xol yi yenn yenn atrocité yi foo ko gisee rek dëkku fi moo tax ñu tuddal leen ay ñat waaw xam nga ñag baaxul ñag ca ot te tóokóor ba lañ koy def waaw loolu mooy bokkunu ak ñoom nous ne sommes waaye ñi nga xamante ni yàlla dogal na ñu nekk ci poste frontière yi wala ñu nekk ci maire yi wala ci arrondissement yi mais nañu nañu nañu nañu nañu nañu sàmm senegal bëgg xaalis warul tax nga jaay Sénégal parce que benn sénégalais bu jaay nationalité sénégalaise dëgg-dëgg sa sénégalais la c'est un mauvais sénégalais salaamualeykum allo. maa na ngeen tuuti volume bi. Ah, bien. salaamaaleykum. waaw ah, grand je vraiment je voulais parler à l'émission à je voulais patienter je voulais kii euh, participer à l'émission là. allo. maa de. waaw yaa ngi wax lu am solo. man it dama bëgg a participer émission bi. bisimilah. waaw vraiment li nga wax dëgg wér ndax man yàlla def na ma temps yi mu tane gii ñu jege rek. Hmm. bala nga fay dugg da ngay sonn chaque euh, euh, cinq cent mètres wala un kilomètre boo daw. Mm-hmm. gars yi arrêté la laaj la carte mm-hmm. d'identité contrôlé ot xool monsieur kii boo amul carte d'identité wàccee la mm-hmm. loolu même war li nga wax moom dëgg la moo tax ni gërek ab def nañ ko te sonn te loolu Sénégal ba gisuma ko da ngay Dakar ba Saint-Louis doo gis benn yoon lañ di oto arrêté xool oto ñoom ñoo ci nekk mais duñ def loolu te li wax ni ci affaire yi étranger yi fii presque yooyu ñu bëri ñoom ñoo koy def boo seetloo euh, xool temps yi benn góor wax na ko ci rajo bi ñun def beaucoup attention suñu deful attention suñu su région bi dañ dem ba ñuy am ñoo xam ne fii dañu dañu suñu réew te boo seetloo ñoom doo gis benn kër bu ne ñu dañu ñaari jabar ñu boole ci benn chambre di di di jur tabaarakallaahu je bugguma mais xam nga ñu may wax ñoom fu nekk nii presque boo demee ci quartier bi Médina macha allah ñoo presque ñoo ko fii ñu ñu ñu ñu ay nationalité bu yàggee ñooñu nga xam ne ñooy dem ba jiite réew mi te suñu sous-région bi la nekk donc bañ a tudd kii rek mais su ma waxee am juñu dina am ñu xam li ma wax dëgg la Maroc yi ba mu fa demee temps yi dem Fès dama ñëw foofu dañu contrôlé xoolal grand xool xeeru jullikaay. Mhm. suñu benn kii bi ñu àndaloon. Mhm. dem dem ba ci aéroport bi naar bi dañ jël ko te xool xeeru jullikaay mais peut être tam moom moom xalaat ñu ni bon waa ji tuuti tuuti laa xeeru tuuti rek fu buy tiim dafa amoon desaan gant. Mhm. moo tax mu jëloon ko. mais loolu yëpp nga xam ne ci Maroc gii rek. contribue sévère chaque mhm. instant te ay ñoom ay kii africain lañ comme ñun mhm. te mais seen dëkk ba neexul dugg de Maroc ñu may dëgg ñuy wax gis nga gos boo gisee mu lakk fa pour génn fa dugg fa yow mais booy génn këyit wér moo la fay génne mhm. kon nag ñu nga wax rek ñu état jël say say responsabilité soo demee ci ñun suñu côté heureusement ci suñu dëkk ci banlieue bi fii ñàkk fi ñëw doo fa yàgg ndax buñ la xaay du la may jàmm da ngay dem toxu dem feneen mais bi nga demee ay Nord Foire ay Sud Foire ay côté yooyu fa lañ léegi jël da ak mise na xool suñu xale yi jigéen ñoom yàq na la Mhm. ndax xaalis quoi da leen di corrompu jox leen ay cinq mille francs mhm. loolu la ba pare bu ñuy ëmbal xale yi daw mhm. yooyu ci ndukkee ci benn koñ deux semaines lañ fay def ñu commencé leen localiser ñu xam ni c'est des ay ay trafiquants drogue daw yooyu nag vraiment état na jël ses responsabilités mu ki kii leen génn suñu réew quoi loolu du question de li Sénégal réewu teraanga la quoi mais nag ça ne va pas dire que da bañ étranger yi dugg mais c'est pour mu mën a identifier les gens les les malfaiteurs mu mën leen génn suñu maa ngi la li nga def vraiment maa ngi la ci di la souhaité une bonne continuation merci. merci jërëjëf suñu waajooju waaw suñu teraanga ji moom moonu rey moom pays de la teraanga bi ñuy wax daal man xaw ma jooju teraanga teraanga moom bu lay toroxal matatul teraanga te dégg nga ni mu ko waxee xam nga bu doon am na réew yoo xamante ni boo jógee fii dakaar jëm Ndar dañ leen contrôler quatre fois mais waaja la muy njëkk a seet mooy ñi ci oto bi ñan lañu ku ne mu laaj la sa carte oto ba la ñuy waxal mais euh, ña ca biir seen yoon nekku ci te vraiment lii mat naa jóg bu baax a baax a baax parce que metti na trop nag waaw metti na trop salaamaaleykum. maaleykum salaam allo sëriñ bi noo tudd ak foo nuy woowee. waaw man maa tudd Mouhamed di woote Gabon. bisimilah monsieur Kane ngeen yokkal ma tuuti maane volume bi. bisimilah waaw dafa bëggoon euh, dama nekkoon di la déglu sànq dafa amul benn affaire bu ndaw bu ma bëggoon souligner rek. waaw. sànq dama xëy di liggéey. maa ne yokkal leen ma waay. waaw ma ne dama xëy ci suba si di liggéey. Mhm. Euh, ma fàtte suma quatre séjours sama kër ga. Mhm. ma jël taxi bon dem naa lu tolloot ay deux wala trois kilomètres. Mhm. mais bi ma fàttali ko carte bi. dama wàcc jëlaat beneen taxi wëlbatiku dellu kër ga pour jëli ko. pour wan la ni rek ñun fii ñu nekk nii nit ñame wu fi dund nekk fi ñu fi dund yorul ay kii. sa kayit ñama woo ko bàyyi kër ga même mu nekkee ñaari minute mhm. ak foo mën di dem muy jàkk ya muy fu nekk da nga yor say mais su ma gisee réew mu mel ni suñu réew Sénégal nga gis euh, nga koo xamante ne nga gis koo xamante ne day toog mhm. ñaari at wala ñetti ak du xam sax kayitam nekk mhm. loolu du yoon. ni kooku bu génnee def jéeye nan la ñu mën a xamee ni kii kii la wala kii fii kii la jóge wala yu kenn xamul te et loolu dëgg la li ngeen doon wax sànq tamit ci mbirum euh, nationalité mm-hmm. man damay gis fii Guinée yi nekk fii yëpp ay question daal la ñu bu ñu leen yoroon WhatsApp leen di indil ay preuve nañ ma xam yu bari ay nationalité Sénégal lañ yor te du yoon buñ fi defee jiyee la lañ di wax benn Sénégalais def na fi lii rek pour que yàlla xam na ne Sénégal mm-hmm. voilà loolu noonu ñun ñu mhm. euh, waaw moom daal <laughs> feneen foo dem daal ñoom ñu ngay contrôler seen bopp ak seenum réew ak ña fay yori këyit ba mu des senegal waaw xam naa nag civisme bi moo des patriotisme xam ngam réew lu waay bëggul mënu koo defar du ko sàmmit fii dañoo am déficit boobu déficit yi dafa bari déficit d'autorité déficit de de citoyenneté de de civisme parce que nit nit bu mënee jaay Sénégal ci ci cent cinquante mille parce que loolu crime mënu koo gën a rëy waaw nekk cim réew nit ñëw ci sa arrondissement wala mu ñëw ci sa mairie neexal la xaalis nga defal ko këyitu juddu mu dem doonub sénégalais salaamaaleykum allo. allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëriñ bi noo tudd foo nii woowee. maa ngi tudd Pape di woote eh, sëriñ Pape. maa ngi rafetlu bi. waaw. man réew mi réew mi réew naka di nekk réew mi nekk étranger fii moo gën doon fi sénégalais. Mhm. man dund naa lu garaaw. wàññil sa télé bi dama wàcc dama guddi. ñuy ñaan ku woote rek mu wàññi teleem parce que bu fekkee sa télé day xumb dafa xumb. fii duñ la dégg day am euh, interférence de leen wàññi tele yi incha allahu bu ko defee ngeen mën a dugg wax seen xalaat parce que nag lii lu délicat la lu tiitloo waa Sénégal la parce que dëgg-dëgg euh, fii ni fi national nationalité yombe moog nenub ginaar a fi yem waaw moog nenub ginaar ñoo fi yem yomb lool la def waaw te loolu teguwul fen te ñi koy def ñu ngi lor waa Sénégal ñu ngi indi problème waaw salaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëriñ bi noo tudd ak foo nuy woowee. sant yàlla maa ngi lay woowee fii Dakar Guédiawaye. bisimilah sëriñ bi. Euh, li ñu def lu mooy rafetlu sa sa xalaat ngol-ngol. Mhm. parce que li nga wax lépp mooy dëgg. Mhm. ñun Sénégalais yi dañoo ñàkk fay fayda xamoo lan moo ñu dal. wallaahi. imagine da ngay nekk doomu Sénégalais nga dem maire yi di pour ut extrait rek. Mhm. il faut ñu jox la rendez-vous trois jours wala quatre jours. te yow nga dëkk biir Sénégal fii. loolu problème la. li ngay wax ci li ngay wax ci réew mi moom. Mhm. dafa leer nañ nañ nañ lu bon li ñag yeeg ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo ci yem. Mhm. Mauritanie gi booy dem da ngay fay sa devise. oui Sénégal booy dugg nu la neex ngay duggee. oui fu la neex ngay duggee man chauffeur la fu ne lay dem. dangay ngay traversé frontière Banjul gii rek boo fi dugg foo jëm dinañ la fan nga jëm fan nga jëm nii fan nga dem la am nga sa kayit. mais Sénégal dara. dara ah, nañ ci wax. li nga wax muy dëgg nañ ci wax. Mhm. extrait bi gën a tuuti yow boo ko bëggee Sénégalais bi tey ji dañ la wax deux jours wala trois jours nga ñëw pour jël ko extrait demal principal fii boo xoolee nit ñi tey da ngay déposé extrait ñoo naan demal ba suba wala demal ba trois jours mm-hmm. soo amee lu urgent yow ñu mm-hmm. jógee fële jàll ba ñu poral normal nga dem sa yoon mm-hmm. barke Demba Ndiaye yaa ngi dégg enseignant yi ñu ngi naan suñu doom yi nga xamante dañ leen di duut mënuñu sax am kayit pour lan dañu ñu ne ay la nañu waxtaan daw wax dëgg li nga wax mooy dëgg Sénégal nag dafa bari ay naafak boo waxee dëgg tey ñu mere la mhm. mais li ngay wax mooy dëgg mhm. li ngay wax mooy dëgg mhm. ren di geeg bee ñaaw na jël xale yi doy na war yàlla na yàlla jàppale amiin merci en tout cas daal vraiment ñu ngi ci li ngay def macha allah yàlla yàlla jëmale kanam amiin amiin amiin xam nga nag sénégalais yi ñoom léeg-léeg <laughs> ay préjugés mooy tax du ñu ñemee wax dëgg léeg-léeg ñu ni sax euh, euh, teel ñoom ñemewuma leen <laughs> waaye xam nga ragal booy ragal ragalal yàlla rek parce que gis nga yàlla bi muy bind doomu aadama tàgguwul kenn su koy jël du tàggu kenn parce que yàlla mooy sàmm man su ma waree dund quatre-vingts ans dinaa ko dund su ma ko warul dund du ma ko dund mais amul ay ragal ak yooyu de te <laughs> ñun ay ay ay ñu gëm yàlla lañu waaye ñun dafa mel ni danoo am yoo xam dañ koo ñimewul man xaw ma lu tax parce que loolu ñàkk ragal yàlla rek la waaye boo ragalee yàlla looy ragal doomu aadama doomu aadama daa mënal moroom ja dara raxas leen sunu dëkk bi salaamaaleykum. allo allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam sëriñ bi noo tudd ak foo nuy woowee. Babacar Cissé laa. bisimilah. acca ñu ngi lay déglu. waaw man de dama kontaan ci bi trop. mais mhm. damaa xam ne dafa am ay solution yoo xam ne solution yu terre mhm. mhm. euh, dëkk. Sénégal bu yàgg ba bi mu nekkee xale acteur bi da daan yóbbu bu la bindee leetar da mun nga mhm. bindee leetar nga jot donc xam nañ fu dëkk mais mhm. léegi Sénégal dëkk amatul ñu ba facteur amatul mhm. ku def toj toj boo paree carte d'identité am xam donc xam nga loolu déjà rek banditisme nekk suuf te loolu lu yóbbu koñ dëkk dëkk bu dëkk am na xale yu fa dëkk yoo xam ne xam nañu dëkk koñ bi yëpp. Mhm. yooyu bu leen jëlee ne mois bi di may tey ku nekk cent mille jël ma cinquante xale ne leen bi yëpp def dénom dénombre leen bi bu nekk ngeen utal ko numéro di par benn plan boo demee benn chef mu defaral suñu plan ku nekk ñu yóbbu dëkk bi ko mhm. ñu ne fii la dëkk ñii ñëw dëkk ci kër yi ñoo ci yeewoo ci suñu dëkk mhm. mu am adresse mais loolu bu dee amul nii boo bëggee jàpp ni fakkaataante mu def ci foofu fekke gi beneen bi itam bu xam nga Sénégal loolu lu lenn la rek li ngay wax nii ci sëg bu nee Sénégal quinze millions d'habitants dañuy ne Sénégal cent cinquante six waa impôt ñoo ko ñu sa cent cinquante six mille six foncier moo am Sénégal ci loolu mooy est-ce que loolu mat na Mm-hmm. donc dafa am ay yoo xam ne moo ci mën a suñu sécurité fu mu dëkk da nga koo war a xam. Mm-hmm. ba pare mën koo yar mais boo xamul fu mu dëkk mënoo ko yar. Mm-hmm. boo xam ne bu defee toj toj bu dundee boo ñëw boo koy dem tribunal. jërëjëf suñu sëriñ boobu bu baax boobu waaw vraiment daal euh, war nañoo war nañoo seetaat nag bu baax nu ñuy téye suñu réew. parce que li njëkk cim réew pour defar ko mooy fexe ba mu am sécurité sécurité nag fépp fu corruption bari njublang bari fa naa naaféq bari fa sécurité du fa mën a am ñun ñun sax yàlla moo ñu sàmm te yàlla yàlla na nga continuer rek comme nun amuñu fullay sàmm suñu réew continuer dinu ko sàmmal ndax nun matuñu ñun ñun ñun ñun li ñuy parce que dafa mel ni te ñun ñi génn mais xam nañ ni muy demee en Afrique xam nañ ni muy demee am na réew yoo xam ni corruption baak lu nee nga fa mais duñ la jaay mukk nationalité réew ma duñ la ko jaay mukk mën nañ nag ci mbedd mi buñ la arrêté jël sa xaalis wala boo yorul xaalis ñu jël marchandise mi ngay jaay mais jox la këyitu réew ma non foofu yëgguñu fa waaye sénégalais lim lay njëkk a jaay mooy nationalité sénégalaise ci mairie Sénégal arrondissement Sénégal nga fekk ku fi dëkkul xam nga Sénégal ba am na yoo xam ne sax buñ koy nangu ñun. daanaka xam nga am na réew yoo xam ne nanguwuñu nga indi fa sa jabar déedéet nanguwuñu France tere nañu ko mais fii da ngay gis ko yor ñaar di fi juri doomam di déclarer ci réew mi yooyu yëpp nuy xool bu nu ko ragal nanu waxante dëgg parce que yooyu du loolu loolu ku bëgg Sénégal doo doxee noonu réew mi ku fi ne nekk fi bàyyil sa njaboot fa nga dëkk boo liggéey ba pare nga fekki leen fa mais lii nii def Sénégal ñu bab rek muy wéy waatal naa leen ni bu ëllëgee dinañu am un grand problème yàlla bu mu am sax waaye dina mën naa ne parce que sàmmuñu suñu réew aaruñu suñu réew suñu réew dañ ko wanteer dañ koo tasar tasaree daf koy saam waaw daf koy saam ku gisub xaalis dof ku gisub xaalis jaay réew mi ndax l'argent lii baaxul frontière u Sénégal moom daanaka mënoon nañ koo bàyyi noonu du frontière xoolal Gambie gii rek bala nga faa dugg li ngay daj Gambie fu ne dinga fa jaar bureau boo jaar ñu xam yaay kan Sénégal moom duggal rek wéyal duggal wéyal Sénégal daal moom mooy réew moo xam ni dafa mel ni ñu fi ne bëgguñu ko te pourtant ñun doonuñu loolu waaye rax bee bari lu ñëw ñu téye nanu segg réew mi waaye waaye ku saaf kafe ba noppi danga koy segg dee leen euh, segg ak a laalo <laughs> li wolof yi naan du cere waaye das koy laalo adduna noonu la dee leen prévoir gouverner c'est prévenir gouverner c'est prévoir mais lii lii dina nu ma a dem ba am président bu dëkkul ci réew mi waaw parce que Sénégal léegi boo koy seetlu sax am na ñooñ boo déggee sax <laughs> da ngay xam ni ñii dëkkuñu fi te ñoo la gën a yori këyit gën laa walaabal pour lan pour lan nu yombal Sénégal comme sax moo tax insécurité bii ah bu dul woon ak yàlla nun nëga ni rey na nu nun ñëpp waaw ndax bokkunu culture bokkunu culture waaw am na ñoo xamante ni bëgguloo sax ñu ànd ak sa doom parce que bokku leen réew moo xamante ni bu nit faatoo mën nañ koo togg lekk bokkut ak réew moo xamante ni wax dëgg yàlla du ñu lekk sax meddum nag bokku nu bokku nu te lu ne am na ci monde bi y a tout y a waaw mais vraiment Sénégal waree su koo def nii jàpp sa réew di ko wanteer ah ku ku mu neex dugg nu la neex tooge fi pour lan pour pourquoi mais ñun suñ teraanga ji moo nu toroxal lan mooy teraanga teraanga mooy dañ lay fat teraanga mooy lu neex nit def teraanga mooy ku ñëw ñu jaay la nationalité sénégalaise waatal naa leen ci yàlla ni 14 millions yi wax sénégalais lañu bu fekkee dañ koo basé ci ay carte d'identité ki passeport ce n'est pas vrai Sénégal matuñu 14 million dañ cee yokk 3 millions boo demee yoo xam ne dëkkuñu fi te bu ngeen ko vérifier di ngeen ko gis te ça c'est c'est le premier chantier normalement du président naka ngay jaayee national sénégalaise ay ay étranger moo tax yu ne ngi fii am léegi lu ne lu ne léegi sàcc si c'est ay ay ay ay groupement la ñu yor xaalis jënd ay 4-4 waaw di sàcc suñu jur gi ci àll ba nga xam ni moom bu ñu ko xësee jël ba romb la cinq minutes jëratul ngay jóg waaw borom 4-4 nun ay mbaam la nu yor ak i saret ak sunu tànk naka la ñuy toppee ku yor 4-4 te ñooñu ñëpp bu ne bu ngeen ko seetee dëkkuñu fi parce que ñoom lu seen réew looloo fa xew ay braquage ay yu kenn xamul mais fii xewu fi. sénégalais xamul loolu ñun sàcc si nu xamoon ci jur gi mooy dañuy ñëw fekk ba ngay nelaw ñu yeewu sa jur jiital ko ba ca tali ba ñu jël oto dem seen yoon waaye ko yorob 4 x ñëw ba ci sa mu sàcc sa jur yore fi talam xam ngeen ni ñooñu du ñuy sénégalais wala bu ñu dee ay sénégalais yu raar lañu mais nag loolu lépp dara defu ko dul kenn contrôlé wul réew mi kenn aaru ko dañ dañ koo abandonné mel ni du dara ci ñoom te Sénégal waroon nekk jamaa ci ñoom ndax réew moo xam ne sa sa maam yépp fa lañ tëdd sa lépp fa la nekk sa maam yu baree baree baree bare joxe seen bakkan ngir défendre territoire boobu nga xëy xëy yow di ko jaay la Joor doon wax naan l'étranger ne construit point ba mu rey ko nga yow nga xëy man a jaay Sénégal ay étranger xam nga ni ñooñu bu ñu nitu dara waaye nanu seetaat suñu bopp waay am réew kenn du ko sàggane nii am réew kenn du ko bàyyee nii réew mi Sénégal la pour waa Sénégal la d'abord ñi fiy ñëw di seet si nañu seet niñ fiy nekke kuy dugg ci réew mi nanga amu këyit këyit woo xam ne mooy won ni dugg nga fi mu amee un an nga dem nga renouvelé ko waaye jarut mu koy renouvelé ndax balaa am un jënd carte d'identité Sénégal boo lëgee dootu ko soxla ñu ci baree baree baree bari jënd nañu nationalité sénégalaise ak seenu njaboot waaw ci hôpitaux yi ci fu ne boo demee ñu defaral lay këyit joxeel xaalis rek am na ñoo xam ne Sénégal moom jaay ginaar ni jaayee ginaar la ñuy jaayee réew mi waaw parce que bëgguñu réew mi. wala dañ fee dëkkut ndax gis nga euh, téye bi lu ñëw nga accepté bu yàggee lu ne dina am ci sa biir lu ne dina am ci sa biir te boo waxee ñu naan noonoom euh, dafa am ñoo xam ne sax <laughs> liñ ciy xalaat da tiit dañ naan ñeme ñoo wax lii ñeme ñu ko ndax nangam nangam mais lu la dal yàlla lu la dal yàlla waaw lu leen dal yàlla waaw Faatiha ak Falaq ak yi jullit bu xëy julli ba noppi jàng ko kenn mënul ci moom dar ak ayatul kursi yo de leen ko jàng <laughs> waaw comme da ngeen ragal ni bu ngeen defee lii xëy na ñooña dañoo xam lu ngeen xamul xamuñu dara xamuñu tos yàlla rek man moom rek a xam nañ bàyyi ragal gi ak préjugés yenn yi amul ça n'existe pas compte ma ni ñi gën a ñàng du ñooña waaw nañu contrôler sunum réew xërëm ya fi newoon ak yooyu jóge na fi ndax alquran ak nodd yi ak jaamu yàlla yi ak allahu akbar yi nanu gëm yàlla te defar sunum réew bu ñu ragal kenn kenn mënul tos ku dul yàlla pour la ay préjugé noonoo ñii boo ne jëlee fi taabal yii sax ñun la non non ñooñu de kenn du leen laal pour pourquoi kenn du leen laal ñu leen ëpp xam-xam fuuf ñu ngi ci biir réew mi xam-xam kay ku koy wër bu ñuul ak bu bu weex a ci yem fii la ëppee lépp a ngi Sénégal nanu jàpp ci yàlla raxas sunu réew mi sunu réew mi takk na lool bari na ay intrus bari na ñu fi nekk te dëkkuñu fi bari na ñu fi ami kayit te dëkkuñu fi waruñu ko am. te loolu premier lu gën a indi insécurité ci réew mi lool la waaw da gis ñu dëkk ci koñ di def lu bon lu ñu génn bëccëg guddi rekk la ñuy liggéey nekk ci cyber yi nekk ci caga ji ay proxénète lu ne ñu ngi koy def ci Sénégal te ñooñ ñëpp c'est des étrangers boo liggéey nag ñu jàngal ko suñuy gone ñibbi mbaa mu des fi parce que am nañuy këyit fii la ñuy toog waaw waaye boo leen gisee xam ni dëkkuñu ci réew mi te lu ne ñu ngi ko fii def nag am pour l'argent pour lan pour lan pour lan nanu sàmm suñu réew ay waay président la république fexeel be ñu contrôler réew mi ak ñi ne ci réew mi contrôler nu suñu këyiti Sénégal yii ñi ko yor ndax war nañ koo am wala waruñu ko am contrôler leen ñëpp ngir yàlla kon nag noo ngi yem fii rek xam naa ne naqar bi du jeex waaye nag a ah, nu wax leen man rek di ñaan sunu borom tabaraka wa taala yàlla nu sàmm nun ñëpp ndax moom rek a mën a sàmm mu ñoŋ yàlla nu sàmm may nu jàmm aaral nu sunu réew bi jaay seydil wujoot kon eh, yemani fii rek insha allahu ba ak jàmm asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu fi amaanillah jërë ngeen jëf